بركاته يو يو لقد بقيت شمس الضحى معجزاته برائن لا تنختي وهباته وآياته صبر وأمره صبر ومدل من جرناوي على النبي اخترموا حرمتهم ala dayma salliwaat li Musaa jaddi chimi mu def li yàlla nga ziare borom ba yeeru or ba ca Madina فوقت سما كوني قد سما وكيف ندوتتي سخاب من تومت غيوان من أمني ونعيم حكمة إذا رسول الله حبيبه محبته الجنة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا زيارة برام مريم اور بچو مدینہ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائم دا فدو دائم تبو مصطفى بفيدو diineem du man suux kasar qur'aanu yàllaaw mboolem teraanga yi xéewal yi moo ko waral moo sunu wasilatu xaqan inda rahmaani yàllaaw taar bi ci yuusufa neex am ñaar Grand Dakar am benn am li ñu ko dara yemu ni fatiha maqamam salat dama ci mos rek ki mo koy motali mu duggal len serigne Babacar si alfaatihi mooy ubbi moom yeneen bi li maa uxliqa lu lu lu nga xam ne na lan mo fi tëju won moy sir salatul fatiha way ken du yow allahu akbar mo xadam wallahi ken du yow man xamna ne buma la rusuton toujours damay ñëw rek di tok su suufu tanki ngay ray sama bop bi boo ma ko defee suba ba jant bi soo rek nga bàyyi ma ma dem toog du caaxaan gis nga nit yàllaa koy baaxe léeg-léeg nga def benn mbir nga xeeb ko lool waaye boo xamoon ni mu yem si yàlla balaa ngay lekk def ko balaa ngay naan def ko balaa ngay tëdd def ko boo jógee balaa ngay def lenn def ko ndax ubbeeku na ba pare dootu tëju nag ba ilaa yoomi diini jàpp ak bàyyi moo fi ne waaye dootu tëju kon lii mooy salaatul faatiha dañ koy cos rek mu indiwaat kër tàmbe du teesoo allahu akbar est ce que xam ngeen ne mbooloo may dem ajana yowmal xiyaam joxeñam bokk na si du man de Aliou Ba yow de yaakaar na dañoo fekkantew si daara ja waaye bokk nañ ku ñu jàngal daara Pa Ahmad Tijaan Taal Tiwaawan malik tre jangal na la jangal na ma kon buma ma man nga ma gagati dama ne joxe ñam japp len ne elek bokku na siri duggal dugal nit aljana joxe ñam ci ko togg ak ki joxe dépasse ba ak ki taxani matt ma ak ku nduggi won ñëpp aljana wa ana ku taxawal lol nak mom ndax gañ bu dem dañ ko fay wëcc dama ne ñu ne ñëw leen oto baa ngi jëm balanta kunda wala ñëw leen oto bi jëm ne tiwaawan billaay safar bay mu mujj a dugg waaye bu duggul oto bi du départ mooy tàmbidu mi yéen waa kër tàmbidu téesitoo di dem assister chaque dimaas jàpp leen ne bokk ngeen ci ñuy dem aljana waaye nag jàpp leen ne oto bi bu taxawee yéen ñëpp mën ngeen di dugg waaye bu dugg du ngeen dem Aliou Ba nee naa bu ma gaggee rek nga gàggarti ma يلا وحسي القرآن بعد عنس بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر سورة المدسير والليل إذا أدبر والزبي إذا أسفر إنها لإهدى الكبر نسرا للبصر لمن ساء منكم أن يستقيم وما تساءون إلى أن يسأل رب العالمين لستوب كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبي إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نسرا للبصر لمن ساء منكم أن يتخدم أو يتأقر كل نفس بما كسب رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتسألون من ما سلككم في سقر allahu akbar kenn du suñ borom Ablaye mu ne jekk xool gaay yi moom rasulullah yàlla ne ko posel question laal ñee laaj leen fiñ ne neexul leen lu leen fa yóbbu mooy maasa lakkakum fii saqar ñu ne ko xaalu lam nakku minal musalliin ñun daanuñ julli waaw xaalu lam nakku minal musalliin dafa posé question pourquoi lii am ñoom ñu tontu ko ñee daanuñ def nangam daanuñ appliqué pourquoi ñu ne daanuñ appliqué yaakaar naa noonu la maa ngi si maa salakakum fi saqar qaalu lam nakku min al musallin lu mu si teg walam nakku not imum miskin daanuñ togg ba mu neex ñu yekkal ajaaxa bi daanuñ togg ba mu neex yekkal imam kama daanuñ togg ba mu neex yekkal ustaas Dan togg ba mu neex yëkkal mu xadam nan laa doon def damay togg rek yemale ko sama biir bi yàlla ne déedéet waxta demee noonu del togg ba mu neex ñu dem ndugg sa marché ba ndugg ba mu doy ñu ñëw waas jëni bu yàpp ñu doggate ko rosi ñuluk togg ba ceeb ñor nga defar ndab bu baax nga dem ñun ñan ñaata nit dimanche man de dem naa fa benn yoon wax dëgg yàlla waaye ñu toogoon ci ron garab gi ndeysaan ma di leen tooñ maa leen joolaay buñ gisee ceeb rek dañu mel ni séeréer yi sama nijaay doon wax mu ne bu demee loo ma pës yi ñu ne ngóor doo ñëw añ nga ne wallaay suur naa mu ne ne wallaay suur mu ne ceeb la mu ne xanaa ceeb duñ koy suur séeréer yi buñ demee lu ma pës yi buñ ne añ nga ne billaay suur naa mu ne waaye ñëwal añ ay jagaan ci ceeb la de bu jën la de mu ne ko xanaa ceeb duñ koy suur waaye bu ñu demee man dama amoon malaat ma dem di ko seeti nit ñi ñëw di jël palaat yi ñii si biir billaahi duñ si bàyyi xel ndax ñoom dañuy joxe rek di ñuy génn sax mais jigéen ñi toogoon si garab gi ñu ngi naan jërë ngeen jëf bu ngeen xamoon am na koo xam ne man ki ma yóbbuloon añ mu ngi jóge woon ba fu sori gannaaw Carrefour jaarume mu ne ma def naa fi ñetti fan xaw ma woon sax fan lay jëlee añ ma ne ko ah mu ne ma waaw ñëw naa fi altine man ajjuma lañ ma wax ne malaat baa ngi foofu altine talaata ba alxames ba ajjuma koo fi xam kenn malaat bi li muy lekk sunguf la nan ngeen doon def métti lool Ousmane yi mii fa tabaarakallaahu mu jox ma ñeenti palaat ma dem yóbbul leen loolu sëñ bi yal na yàlla fay la moo tax ma ne Yel wa kër Tambadou di do, farlu len ci nak bu len ko def ngir ngistal daf ko def te yalla rek tax lii mooy sëriñ lii mooy jëmm sëriñ si ñoom dañu indil ngir ñun ci luñu mëna muccé ñu bàyyi ñuko waye bu ci gëna ki moy sam ko leeré daf si bok ñene mbir maa ngi nii nga ne maa ngi si dem bam yag nga dellu rocceeku yow ni sëriñ Babacar kon bu ko defé serign bi nga jéggal ma ci kàddu yi guddal naa yàq naa waaye ñu ngi jéggalu bu baax di leen ñaanal wér ak wérle sutura ak suturlu ñaan yàlla yal na yàlla def fi xéwal ak naataange yàlla musal ñu ci lépp lu ñu ragal waaye ñu ngi lay ñaanal làmmiñ bi yal na ko yàlla wéral yàlla feesal nopp yi taataan ci dënn yi ba lépp li ngay def suñu borom bi yombalal yombalal la ko bu ko defee mu ànd ak jàppandal ñu teewaat déwén ba beneen yoon

على سيد العرب والأجم سيدنا ونبينا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أيها الحاضرون والحاضرات من مستمعين والمستمعات أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية طيبة مبارك من عند الله عليكم alaa waxiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu subhanaka laa ilma allamtanaa innaka anta alimul hakim mbokk jullit mbokk woy dégluy gannaaw sante borom subhaanahu wa julli ak sërmal ci sang-sang yi muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di leen ziyaar di leen baraax di leen baraax di jiital si mu suñu kilifa suñu mag cheikh ahmad tidiane di ko nuyu di ko ziyaar di ko jox di nuyu kilifa ji imam ji tok ñu koy ziar di ko jox wayam waaye fa tabaarakallah di nuy góor ñëpp di leen ziyaar ñu bañ a guddal ndax guddi na di leen jox seen wàccuwaay fa tabaarakallah soxna yi ñu nuyeen leen di leen ziyaar waaye di ziyaar beral niyo ñi nga xam ne tey ñoo tax ñu teew fii mooy waa Téesito ñu jël nuyoo ji jottali ko aslu bi muy daayira samat ñu jottali ñu ko mbóoreem ñu ñu bokk ji ak ñu fi teew Souleymane ak équipe bu mu ànd ak maa ngi di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu animateur ji di nuyu sëñ Abba Sagna mu ànd ak fa tabarakallah fa tabarakallah di wax ne balaa ñuy dugg ci wax ñi suñu kilifa ji wax na fi discours parcours fu mbir mi jaaree waaye dama ne Casamance pas Djigimor, pas Ziguinchor, pas Sénégal, mais Afrique, monde entier, a une référence Je me dis référence que c'est mbir référence que c'est Dinedi. référence que c'est Tarikhabi, référence que c'est société bi bu ci gëm na ko bëgg na ko fonk na ko mu ngi koy dundal yonente bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne balliquuni walaw bi aayatin da ngeen ma jottali donte ko benn aaya jottali boobu waxut ñi yor kaddu mbaa ñu am xam-xam rek waaye jottali ji dafa yaatu kon moom mu ngi dundal diine ji ci côté ñaata daara la am bari na te doxew ko waxew ko daf ko def li wajhillaahi karim tarixa bi nag fu ko waaye yaakaar naa bëgg a naxee sax fa nga koy jaare daf si jeex takk di ñuy dundal tarixa bi te bokk na ñuy dundal tarixa yi fonk suñuy laazim fonk suñuy wasiva fonk suñuy xadratu juma kon mu ngi koy dundal si ay xadra populaire wax leen daaw sengeer buñ koy waaj ma toog seet si ko ñëw waxtaan ak moom mooy de une semaine bima waxtaaneek moom ñu dégg décision xadara ji am na ampleur bi nga xam ne ak taxawaay ji nga xam ne mënu ñoo gëm ne mooy de une semaine ampleur bu mu toll ku fa ñëw gis lu mu fa dajale si ay mbooloo si ay oto léegi xadara bi yëpp mu jël ko en charge dépensé ko ak yeneen kon mu ngi dundal xadaratu ahmadiya tijaaniya malikiya wàllu social nag fa tabaarakallah rabbi boore koog cell xam nga dimbali nit te doo si gis sa bopp di dimbali nit te fàttee ko te dimbali nit te yàlla tax moo jafe bëri na ñi nga xam ne balaa ñu ngay jox média yi wër soo leen waxee sa soxla ñu bay ba ñëpp toog nga wax leen ñu defal la soo leen fekkee ñoom ñaar ñu gàntaan la bëgg na ñuy joxe te yàlla taxul moo tax yàlla am na ful rek faydaam de bu dee nit ñaa tax dina la ko fay nee na nu mu la koy fayee mooy fay na la ko ñit ñi nga bëggoon ñu gis ko nit ñi gis neen ko nit ñi nga bëggoon ñu dégg ko nit ñi dégg neen ko kon jarut ñuy wuti feneen jarut ñuy xool leneen am neen ko gis neen ko mu ngi nii nen jéem a roy si moom ñaan yàlla guddal fanam te yokk ku wér daara yi nag saaxa sëñ Abdul Aziz wax na ci wàllu joxe ñam ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toogoon na ak saxaabaam ne leen xanaa bugg leen ma laaye leen biir li nga xam ne su ngeen ko saxoo def si ngeen dugg àjjana ñu ne ko ax kay gaawee ñu ko mu ne leen af suuf salaam dee leen siiwal nuyoo boo dajeeg sa mbokkum jullit bu ko xaar mu njëkk a nuyu boo gisee sa mbokkum jullit njëkk ko ne asalaamu aleykum waaye am na ñi nga xam ne buñ dajeeg Souleymane ñu ngi jéem a téen di xool ndax Souleymane dina leen nuyam nuyut bu leen nuyut ñu téen romba ko romba naa ko nuyu ma du ma ko nuyu bokkut ci fulla ñàkk a xam la waaye nag ku la nuyu ku ne nag fexeel ba fay ko ndax nuyoo sunna la waaye fay nuyoo faratara fa iza xuyyikum bi taxiyatin fa xayyu bi axsanu minha aw radduha loolu suñu borom wax mu ne bu nit nuyoo ni mu leen bu ngeen wa rahmatullah ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon nuyoo sunna waaye fay nuyoo faratara mu ne dee ngeen siiwoo nuyoo ñaare bi mu ne wa sallu niyaaman ngeen toog ba ñëpp tëdd guddi jot deux heures du matin nga xam ne dafay sedd guy kenn ku nekk yaa ngi bokk muur sa mbàjj nga jóg di julli di la mu ne ñetteel mu ne ngeen di joxe ñam joxe ñam nag kon ni ngeen koy defee dafa am solo joxe baax na waaye joxal ku ko yelloo fekk ki nga xam ne chaque jour mu ngi añee ceebu jën bu maar dee mu teg si yaasa gannaaw suba mu teg ci supp gànja kooku mën na boogam waaye xool ki nga xam ne mënu ko fekk nga ko si circonstance situation bi nga xam ne soxla na ko yelloo na ko kookoo jar a jox kon ngi ngeen nekk yeneen si ñett yi ku ko saxoo yonent bi nga dugg àjjana ba amaa ñëw seen Babacar dama ngeen di nettali si joxeñam xanaa xam nga ne su seen wasiga suñu naa wasiga Seexuna Ahmad Tijaani Chérif Fatimi sa jour dina génnee téeméeri bool yi muy génnee joxe ko wax ma nga yu taalibee di jëfandikoo téeméeri woor kullu yawmin tuula umruhu dundam ji yépp da koy def te jox benn jullit bu xiif nga reggal ko jox ko mu nekk moo gën a yàgg tabax ay jàkka yu du jeex dafa am ku ñu wax barxum benn buur la woon bu beew bëri alal am benn saxaaba bu ñuy wax Abdullahi Mubaarak génte yonent bi sallallahu alayhi mu yebal ko si Barxuum ne ko dama ne ko maa koy nuyu di ko ziar mu jox yóbbante yonent bi mu egg ne ko dama lay laaj balaa ma ngay wax yóbbante bi lan nga defal lan nga def si semaine jii ñu génn ay fan yi mu ne ko bu ma sonnal li ma def la ma koy laajee man fàttee na mu laaj ko. mu ne ko man dal fatale naa naane ñaar la fi def dal mo wax nga ko dama am ñaari dom xol len ñu gëna rafet xol ku gëna rafet ma takke ko son bop kenen ci mayna ko suma bëkk neeg loolu la la ci def yonente bi ne ko dedet du bobu des na la jaar ko mu ne ko tay de tok na sama pare bi guddi jot ma tok di sen ben na lamp torsu buy takka ka fay di jubal si sama pare bi ma jop mu ñew ba sen ma dellu ma yaakaar ne am na waa waaju jóg di ma fexal ma koy toppi toppa ko topp ko ba dugg ci kër ji ma fekk ko foofu ndeke benn waay la soxna si nga xam ne ay njabootam dañoo xiif amuñ lu ñu lekk ñuy jooy mu wër di xool ndax am nañ desit ñu jox ko mu ne ma dellu sama kër xool desiti yi nga xam ne taalibe yi ak desiti yi nga xam ne desal neen ko ma jël desiti yooyu jox ko ko ma yonente bi feeñ ne ko mu goog nag wax ko jëf joojoo tax ñu teg si ay fan yi diir mu génn àdduna jëf jooju mu jëf nga xam ne bugut yonente bi gëmul yàlla foo ne Muhammad mu ne tappit saaga yàlla terale ko yóbbu àjjana wax daan joxe ñam kon nag joxe ñam dafa am solo waye di góorgóorlu nak di julli suñuy waxtu juróom waaye di ko defee si jàkka ji mo gën nax jakka ji kat yonente bi sallallahu alayhi wasallam di waxoon na ne la salata li jaaril masjidi illaa li masjid ndori jakka ji amul julli muk lu dul si jàkka ji nga tok même pas 100 mètres digënté ak jakka ji te amo ben ngant bu nga tegee julli ji nodda neen nga xam neen nga tok ci keur di julli yow kenn dafa bok nak tari taari bi cheikh day julli la di fonk nak suñu khadratu juma boko defé ben yon cheikh da ngay rayal ñaarer bi ñettel bi nak du la rayal kon nañu gor kon nak gi ngeen def dafa reuy munoon ngeen organiser leneen mbaa defi leneen mbaa defee ko neneen ngeen toog ba 25 cinq mars jot seen xel dellu si leen delloo njukkal góor ji delloo njukkal borom kaala ji delloo njukkal borom bone kaala bi delloo njukkal borom médaille ji delloo njukkal borom sekk ji delloo njukkal xalifatu ahmadeni war maalikin fil ermi war asrar bu leen woy de ولم تكن مكسوة بضواعف ولم تكن مكسوة بضواعف ولم تكن مكسوة بضواعف مني ولم تكن مكسوة بضواعف ولم تكن مكسوة بضواعف ولم تكن مكسوة بضواعف ولم تكن مكسوة بضواعف